waaw jàpp naa ni Aïda Mbodj mu xam nga moom pratiquement mooy coordonné li nga xam mooy euh, coalition bi te y'a un certain moment gis nañ ni bari na ay critiques yu jóge ci opposition bi nga xam d'après bi juste bi président de la république génne jàkkaarloog presse bi dal di am lu mu évoqué ñu bare bari ci euh, opposition bi génn nañ ku ci mel ni Bougane ku ci mel ni Thierno bokkum ak ñeneen ak ñeneen génn nañ véritablement indi seen point de vue par rapport ak li nga xamante ni moom la président Bassirou Diomaye Faye def am na si ñoo xamante ni pratiquement jàpp nañ ñi bi bas toogee ba léegi defu fi dara loo xamante ni euh, nit ñi mën nañ am yaakaar ci ñoom am na ñoo xam ne nag am na lu ñu apprécier am na loo xamante ni ànduñu si et c'est ça la démocratie aussi et que ku si nekk da nga koy nangul point de vue am donc jàpp naa ni loolu tey moo gën a suscité coalition Diomaye président bi daal di génn pour indi véritablement euh, ñoom itam seen contribution par rapport ak na nga xamante ni noonu la président de la république daal di euh, taxawee ci 100 jours yi Euh, dans un premier temps euh, Aïda Mbodj ka mu njëkk tontu mooy Mamour euh, Lamine Diante nga xamante ni dafa ñaawlu xaw a véritablement critiquer li nga xam ne ni que mooy fonctionnement coalition bi parce que jàpp nañ depuis boobu léegi dañu taxaw rek puusuñu paasuñu bëri na mbir yu nga xamante ni waroon nañ ko waroon nañ ko def te defuñu ko loolu Aïda Mbodj indi na si ay éclaircissement bëri na loo xamante ni aujourd'hui dañu taxawoon doon ci xaar président de la république pour mu jox leen ci li nga xam ne ni que mooy ndigal donc ñoom tontu na si loolu par rapport ak réforme yi nga xamante ni war nañ cee jëm par rapport ak coalition parce que coalition bi coalition la bu ñu tegoon bi nga xamee ni que ñu ngi nekk dans l' opposition donc coalition bu ñu teg bu nekkoon dans l' opposition mënul yem ak coalition boo xamante ni aujourd'hui mi ngi au pouvoir donc il faudra des réformes yu nga xam dina gën a adopté wu aujourd'hui ak ni régime bi di fonctionner jàpp naan si logique boobu ne bu weesoo aussi indi na véritablement moom itam ay critique critiquer opposition bi insister également sur le bilan comme ni ko amoon waxee sur le bilan immatériel bi nga xamante ni le président de la république ak gouvernement bi ñu ngi si di liggéey bilan immatériel bi nag bu ñu ko waxee xëy na peut-être mooy la nga xamante ni que ñu ngi koy def au niveau de l'administration pour assainir li nga xam ni que mooy administration bi rationaliser waat euh, li nga xam ñeel na wàllum foncier bi rapport yeeg tout ça et cetera moom mu jàpp ni ce des actes concret yoo xamante ni aujourd'hui le président de la république mu ngi ko di jëmmal ak mi ngi ko di di di di fësal par rapport ak li nga xam ne ni que mooy mooy gouvernance am kon jàpp naa ni taxawaay boobu taxawaay bu am solo la euh, parce que ñoom dañu taxaw pour jàppale le président de la république te au loolu jàpp naa ni dañoo war a nekk aujourd'hui tamit un bouc émissaire dañu war a nekk une arme défensive par rapport aujourd'hui ak ñi nga xamante ni ñu ngi taxaw pour jàmmaarloo ak le président euh, de la république jàpp naa ne taxawaay boobu la ay Aïda Mbodj taxawee ak ñi nga xam ne ñu ko mooy la coalition Diomaye gis nañ nag ñu bëre bëri si biir coalition bi Omar wax na ko léegi dem nañ de dispersé ku si mel ni Aminata Touré parce que loolu li ma si mën a jàngal rek bu fekkee kenn ku nekk si pàcc bu ne avant coalition bi ñoom ñuy réunir di kii parce que ku si nekk am nga loo sentir jàpp ni coalition bi dox bi mu war a dox doxu ko ku nekk nag nit ñi jël responsabilité am donc taxaw daal di def point de vue am def déclaration sans attendre également les les membres de la coalition ñu mën a kii mais daal jàpp naa ni am na réeroo gu am seen biir waaw du réeroo gu ñuy fësal nag mais am na réeroo en l'écoutant Lamine Diante rek dafa dafa dafa wane dafa wane ni am na parce que bu fekkoon ni réeroo amul jàpp naa ni moomul lamin Diante du yëkkati kàddu yooyu si kaw ba ñëpp di si di si jot ba ay dëmbooj dem taxaw di ko di ko tontu kon jàpp naa ni aujourd'hui loolu la loolu moo gën a fës ci li nga xam ni que moom la ay dëmbooj daal di taxaw wax. d'accord que devrait faire la coalition. pour euh, euh, bañ a euh, bañ a bañ a bañ a am jaxasoo yi nga xamante ne def nañ ko ba pare li nga xamante ne moom la jante génne wax ko est-ce que mënoon nañ ko xaar ci coalition bu bees boo xamante ne daanaka il vient d'arriver au pouvoir. bon je pense que actuellement le problème mooy. Ah. Euh, te on le voit partout on l'a vu avec l'ancien régime mooy tey jii da ngay ànd ak nit di xeex ak moom nit kooku ñëw au pouvoir yow da ngay bëgg mu nommer la. jante est que nommé nañ ko je pense pa donc je pense que actuellement le problème au Sénégal c'est surtout ça euh, te coalition Diomaye président problème boobu la ñu am maa ngi fàttaliku Ousmane Sonko bon defoon na ci benn vidéo on peut di expliquer ni Pastef rek ko si nome wul mu mer donc je pense que même avec la coalition loolu moom moo nar a am léegi nag je pense que tey jii ñi nga xam ne nii ànd nañoo ak nit parce que Sénégal partage du gâteau bi ñu doon wax moom moo waratul am tey jii euh, l'acte pur il est désintéressé war nga mën a jàppale Fatima mais da nga ko war a def te yàlla tax mhm. da nga ko war a def ndax intéret intérêt askanu Sénégal mhm. mais c'est pas parce que tey jii jàppale naa Fatima euh, que tey jii bu ma ñëwee peut-être euh, ba nekk au pouvoir Fatima bu ñëwee rek man dama war a am poste de responsabilité mhm. léegi nag actuellement problème boobu la coalition Diomaye Président am parce que bon peut-être ñi nga xam ne nii ñoom am nañ ay poste de responsabilité doo kaas kay suukar saa tax damaa foog wala. waa mais euh, euh, euh, bon ça dépend sa dépend parce que jàpp naa ni comme je l'ai dit l'acte pur il est désintéressé. Hmm. war nga mën a xeexal sa askan. te nga def ko te yàlla tax mais tey ji bu boobaa sax day day mel ni tey jii tu vois ça dans la presse tu vois ça dans les autres structures yow tey jii euh, jàppale nga nguur gi yaa ngi fi woon yaa ngi def ay révélation donc nguur gi bu ñëwee dala war a nommer ça veut dire que yow li nga doon def est-ce que dëgg la est-ce que te te t'es même pas capable sax de créer de l'information pour ëllëg ñu nommer la je pense que pratique yooyu dañ ko war a bannir parce que pratique yooyu boo ko na si lu taxoon tey jii ñu jëlee fi Macky Sall mooy tey jii partage du gâteau bañ koy wax Sénégal ba léegi kañ la yàgg nañu wax ay partage yu gâteau yooyu ne partage yu gâteau warul am fii Sénégal donc je pense que yenn pratique bu ñu demee bañ ne dañ koy génnee ci réew mi warul yem rek ci peut-être gisoon nañ benn secteur privé boo xam ne ni tàmboon nañu benn affaire boo xam ne nii seen digganteeg état la bon euh, projet yu bëri état Macky Sall moo ngi nii ba muy woote jam ñaajo pour secteur privé bi ñëw euh, gisul kenn daanaka ce sont les Turcs ak ñeneen ñi ñoom ñoo ñëw jàppale ko Euh, mën a tabax dara jam ñaajo donc on a une secteur un secteur privé boo xam ne dafa am noo xam ne da ko yàgg doxe euh, léegi nag euh, même au niveau du au niveau du comment dirais-je du du landerneau politique je pense que tey jii yow war ngaa mën a ñëw taxawu état jàppale ko si balaa moo toog mais état bi bu demee ba toog nag yow nga may ko kii daal nga may ko benn écart nga bàyyi nit ñi tamit ñu agir à gise mu bañ a doon loo xam ne nii partage du gato la man yenn nii noonu rek laa ko mën a gisee dama gis ni peut-être ñenn ñi ils sont en train de mettre la pression au nouveau régime parce que man am na ku ma doon expliquer lool ne ma bon temps yee benn waajoo xam ne ni peut-être gis na ni nomewuñu la nga nekk si dans les médias dem def interview à gauche à droite rek ñu nome la donc am na ay benn pression boo xam ne ñoo ngi koy jéem a teg le nouveau régime nouveau régime boobu moom moo ko war a bañ moom moo war a bañ loolu parce que sinon rek après li ñu jiiñoon Macky Sall ba jëlee ko fi bu boobaa loolu ngay mujj di def je pense que coalition bi war nañ di gën a déggoo si par parce que am na loo xam ne sax c'est c'est c'est pas élégant ce qu'a fait euh, Mamadou amin jante par rapport à Aïda Mbodj tout ça je pense que ñoom ils ont un cadre boo xam ne nii bu fekkee ni yow gis nga ni gis nga lenn loo xam ne ni su coalition bi neexula je pense que am na benn cadre boo xam ne war ngeen ko mën a wax waxtaanee parce que looloo tax ñu naan un homme d'état parce que boo déggee ñu ne un homme d'état mooy ki xam ne nii toll na ci benn niveau responsabilité boo xam ne nii day xam lu bëri mais newul lépp lay mettre sur la place publique am na loo xam ne nii da koy jëlale am na loo xam ne du toog ci la place publique di ko wax mais yenn jéebaane yi boo koy def rek day mel ni en fait tu es en train de mettre la pression à l'autorité te jàpp naa ni suba suba suba bu ñu la nomee doo doo doo amati posture boobu di nga